auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi bañ santee borom bi subhanahu wa taala di julli ci sang-sang yi seydina Muhammad salaatu wasalaam di sant sëriñ Tuubaa Xaadimul di ñaan suma sëriñ bi suñu taxaa yàlla may ko wér ak gudd fan ak mboolem mu jullit di ñaanal way taw yàlla may leen wér di ñaanal ñuy dem suñu borom bi xare leen ci àjjana yi neex yi firdawsi mbokk yi tey ñu indil leen di ngeen tey dama leen indil ci cosmétique Serigne Bassirou Ndiaye lu bees tàkk indi leen place bi nga xam ne askan bi ñëpp ko doon jàmmat ñëpp ko doon laaj képp koo xam ne yaa ngi dëkkee géejiwaay rek li tàmbale ca bunt ba ba ca fond ba rek soxla woon nga bitigu Serigne Bassirou Ndiaye ñëw fii ci géejiwaay ñu indi leen ko ci rond point Craf rond point boo fa taxawee rek en face li nga xam ne moom mooy CES APR bi rek dañu dañu gis tey ma indil leen li nga xam ne moom mooy maanaam gamme Marème point abi lii la ñuy wax 100 point nag ñu bëri dañ ko war a xam muy benn produit bi nga xam ne ni maanaam mën nga ko amee fu nekk nag fii ci àdduna ak Sénégal waaye nag Serigne Bassirou Ndiaye ñëw na tàggat 100 points boo xam ne ni ca labo la ko liggéeyam waaye ca gàncax ga li fi maam bàyyi woon di suñu cosaan di suñu doon di suñu donnu 100 points bi képp koo xam da nga bëgg am traitement ci sa sëbo kawar guy damm di ruus bëgg sëkk te du sëkk kawar goo xam day njàmpe wu di wow di damm cent point bi moo ci gën a gaaw te daf koy traité yamu ci de daf koy liisal kawar gi nooyal ko bàyyi ci xet gu neex goo xam ne ni koo jege rek du bëgg sax nga randu ndax xet gi neex gi génn sa kaw bopp diw bopp bi gis ngeen nu mel couleur bi nu mu rafetee mu ngi ci benn pour am na kubéer boo xam di tëju carrément poussière du dugg ngelaw du dugg ba pare xet gi neex na te loo ci laal lu mu tuuti tuuti nga diw ko ci sa kawar sa kawar day nooy sa kawar gudd sa kawar day sa kawar day set day xeeñ lu neex ma ñëwaleen ci maanaam saabu bi muy saabu marine point abi saabu la boo xam ne nii maanaam boo koy sangoo lu mu tuuti tuuti dafay raxas sa deru yaram ba pare sa peau bi day dund day am maanaam xet gu neex guy gindi ci say yaram te sa deru peau bi day nooy te day set te day nes nesi saab bi boo amee picc daf koy dindi soo amee xam muy yooyu mel ni jib da koy dindi soo amee rew da koy dindi soo amee ay tërgëna wala ay ër da koy dindi ku sangu ba set war ngaa diw nag sa yaram mu indi leen nag lait boo xam ne ni amul hydrocone lait boo xam ne ni dafay nooy sa kaw sa yaram lait boo xam ne ni dafay setal sa deeru yaram bi lait boo xam ne boo koy diwoo sa yaram bi day am xet gu neex ba pare day nooy népp mel na coton muy lait de corps marin point abi lait de corps marin point abi bi soo koy jël di ko diwee sa yaram sa yaram dafay nooy day set day dindi picc góom crasse xam ak ak réew te it da lay jox nat sa peau naturel moo xam teint noir moo xam teint marron moo xam ku xees maanaam te amul benn hydrocone du xeesal te du leeral te du gaañ moom mooy lin bi ngeen di gis muy lin marème point abi am na xale yi seen wàll ma indi leen bamba lin de bamba gis ngeen ko lin de bamba bi gaam la day jël li nga xam ne moom mooy euh, maanaam cent euh, euh, point bi mu raxasee ko li nga xam ne ne moom mooy yaramam ak kawaram ak kanamam lépp xale bi mën na koy sangoo muy cent point de bamba su sangoo ci cent point bi ba pare nag xale day am xet gu neex ba bu la neexee sa mën nga mën naa bañu diw waaye taxul ma defar ko li nga xam ne moom mooy lait de bamba lait bi bu ko xale bi di diwee yaramam xale bi yaram bi day set yaram bi day rafet te dafay am maanaam tee boo xam ne ni amul fenn macha allah képp ku doon jàmm tànk yu métti ndigul yu métti arthrose nerf sciatique rhumatisme ku doon jàmm ay woqatu wala heure wala picc wala góom sa yaram di xasan lii di frotté Serigne Bassirou Ndiaye moo ci gën a baax képp ku def bëgg def massage si sa yaram ñëwal làmb foroti bi tuuti ngay laal mu traité la li nga xam ne moom mooy maal yeeg métit yooyu nga am mbokk yi lii mooy li ma leen fi indiloon ci jox leen suñu adresse ñu ngi fii ci boutique bi nekk ci Géejawaay ci rond point Craf rond point Craf mu ngi jàkkaarloog siis bi nga xam ne ni moom mooy APR gam bi loo fi soxla am na fii tey jàppandil na yomb na ci prix yi ngeen koy amee te seerul te maanaam ku ko làmbool rek da nga làmboog lu am njëriñ suñu numéro téléphone mooy lii ngeen di seen ci écran yi 77 769 25 14 77 769 25 14 wala nga 77 013 04 77 77 013 04 77 wala nga ci 33 871 09 72 mbokk yi suñu parcelle yi Parcelles xam 1 Guédiawaye wala wala nga ñëw ci keur croisement képp ku képp koo xam ne nii ba ci Tilène centre commercial Tilène produit bi mu fi